jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne bu ñu nee la quatorze août da ngay xam ne jam production moo woote woo ñaari xale yoo xamante ne ay ndaanaan lañ mu kenn ki di Gora Sock mi ngeen xam menn mi doomu parcelle bi doomi Cambérène bi doomi Mbawar Mbawar bi moo war laaleeg fils de Balla euh, mi nga xamante ne poulain wu Balla Gaye 2 tey mën nañ ni poulain wu Modou Lo ak poulain Balla Gaye 2 ñoo fas yéene laale la 14 août góor a ginnaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet di su ko defee ñu weel waxtaan bi góor a maa ngi lay nuyu baax di la siyaar. waaw maa lay fay jiibi sant yàlla di julli sant sama ñaari waajur sant àdduna bépp di sant kilifa diine kilifa aada yi di sant waa jàmbaar yëpp di sant nag sama maam père sant bi. da hmm. koo xam dafa yàgg sonn ci parcelle ci mbiru parcelle yëpp. waaw. sa diggante ak euh, fils de Balla jàppoon nañu ko ginnaaw jaam ak pexem yàlla ak dogalam góor a soog am ndog ndog yàlla def ñu reporté combat bi combat bi jàppaat nañu ko mais dégg nañ chaque fois fils de Balla day génn def ay attaque ci góor a boo ko gisee nan la lay def. waa attaque mais ree may def ndax moom day wax nii rek mais bu la 14 août incha du jëf wax ji nag yomb na quoi moom noonu la mel seen nature. Hmm. moom lu ko neex da koy wax si nit. Hmm. dafa jël combat boo xam nag bokkut combat yi mu jël. Hmm. moo xam mosul bokk ak ñu leen bëreel. ah waaw. moom nee na ñi mu bëreel ci combat bi mu jugee rek moo la gën a weex foofu muy général Malika moom yow nee na amul lu muy xaar ci yow wala lu muy xalaat ci yow yow ñëwul ci digg géew ba rek taxaw lépp moom moo koy def. non man wax naa ko rëcc lay am même na kër yow boo fa duggee ci doo rëcc bëri dafa am rëcc. Hmm. waaw dafa am rëcc. kon da nga wax diggante ma fils de Balla dafa rëcc. waaw dafa rëcc. ku tax nga ni dafa rëcc foo ko teg dama ko xam rëcc dafa am ci bëri mais le quatre août incha allah rabbi. Hmm. li ma waxoon juguma si ba léegi man. Hmm. naa ko muy wax lu nekk képp ku mos a toon ci làmb ak képp ku mos a dépasse naa ko fayal le quatre août tey. waaw maa ko wax de juguma si. arbitre bu sifflé woon lan mën a xaar ci Gora Sock diggante ma fils de Balla arbitre ne prix rek. naa bëri ngeen war a jàkkaarloo. mën naa bëri ba ñëpp xam ne mën naa bëri mais il faut que il faut ma xeexam duma ndax waxam dafa bari te dafa yare ko te loolu jóguma si ba wax naa ko fi zabal man du ma mbër damay wax di delluwaat ginnaaw naa hmm. man damay gone am sama doole te li ma am bu la kattan su ma ñëwee dina xam ne man maa ngi moom bokkuñ yaram hmm. Hmm. moom nee na képp ku lekk avance am ku mu amal contrat rek doo am jàmm yow mii ba ci signature yi ñi ngeen di am yépp doo am jàmm sa ah, diggante doo ko dégg doo ko am moom mënu ma xañ sama jàmm ndax maa gën a ñeme gën koo wéy gën koo capable loolu ay lu jàllal la dama gaañoon rek mu nekk nii di wax mais combat bii ñu jëm nii lu mu ci bañul bañu ma aussi. Hmm. waaw ci signature ci fuñ daje maa moom ci bañul bañu ma aussi. Hmm. Eh, fan yi gis nañ jàmbaar vraiment di leen féliciter bu baax macha allah ndam yi nga xamante ni sortie yi ñuy def di ko am ku mel ni Franc gis nga ko mu génn def sortie diggante ma soq am ndam barki démb daam seen ñëwaat na def loolu góor a topp ci est-ce que du doon pression ci yow. waaw dinaa pression xam nga yàgg naa bëri ci écurie bi bëri yëpp di hmm. mag laa jógee doo dóoraat nekk jàmbaar. Hmm. mais di félicité Dame Sène di félicité Franc di xam ne làmb noon la. Hmm. ay ndaw la dañoo war a gën a góorgóorlu. ndax mbëri ci gox yëpp dañoo teg bët. te li ñu teg bët nag moo tax moo tax moo ñu war nañu dañoo war a liggéey. waaw. Fils de Balla gis naa ko vraiment mu yor forme boo xamante ni. forme bu mucc ayib la. macha allah gis nga état de forme bi gis nga ni mu ni muy sa diggante yow boo gisee doo xaw am tiit ci moom. ban état de état bu mucc ayib la biir rek ndax mooy ay état de forme. nga gis biir ci moom. fi zamana way bu bees bi ñu way nii moo tax ñu génne ko ndëkkate yi ana ndëkkate yi moom moo ko moom. kan ndëkkate la fi zabana. zabana. non bàyyi li nga wax. da nga ko mos a gis mooy sumee ko di contact nit ñi wër ko wala mooy contact kenn di ko vidéo wala di ko filmé da ko ñeme man fi may contacté mbooloo toog di ma seetaan day nappe nii rek di wax xam nga nag Sénégal yi wax dafa yomb. Mhm. mais jëf bu jotee ba ñëpp ba isat isat vingt heures jot. ñu may une minute de silence ba dugg ci géew maa moom dina xam ne maa moom duñu ay morom. mais form boobu ci la daanee ndaanaan yu bëri yow forme bu Fils de Balla yor da koo xeeb. moom benn mbër ba mu nekkee mbër ba léegi benn mbër la mos a daan bu mat cent dix kilos cent quinze muy général maa ngi koy nuyu au passage moom champion la. Hmm. man dama daan ay cent vingt kilos ba tas dama daan mobile deux cent vingt kilos daan Cobra daan hmm. jëm Thierry ñooñu dafa daan Baye Mandione daan ma Paul te ñooñu baat ak tontu la gis nga la 14 dina xam ne maa ngi bokkuñ man li ma juumul maa ko ëpp doole dàq ko bëre bu koy supporter mboor mboor rek xañuñ ci moom. moom go moom Fils de Balla. wallaay wallaay. Ah. maa ngi nuyu mboor mboor sax au yëpp saa ma yeewoo damay ay messages yu bëri bëri bëri ci mboor mboor yi gën ma bëgg combat bi waa Cambérène rawati sama gars yi sama xarit ak sa sëriñ si ak waa lu Bayti Rassoul yëpp parce que 1 ba 26 taxaw. la ko doon ut stade dama ko bëgg a raser incha allah rabbi. mën nga ko loolu. Fils de Balla moom nee na moo lay ëpp supporter ndax ñi ne ci ginnaawam nekkuñu sax sa ginnaaw yow. bilaay walaay su ma xaajee mboor mboor rek su ma xaajee digg bi Fils de Balla mënu supporter toll su ma waa Parcelles waa Cambérène man maa ngi mu yëngu. Hmm. lépp luy mbër maa koppali maa ko gën a nekk mbër teg maa ko béy supporter ëpp ko doole dàq ko bëre moom fekk rek te combat bi. Hmm. ci affaire gàllaaj wala yooyu loolu ay détails la. gàllaaj waaw ci yooyu rek. Ah, ah mais gàllaaj ci làmb la bokk te góor am mbaa làmb ji du jeex nga dañ maa jàpp ci gàllaaj. non de yéen da ngeen di wax ko tàppet. man hmm. mosuma jàpp ci gàllaaj 15 14 combats la ba CNG mosuma dagg. am ko moo loolu yow. mosuñu laa dagg mosuma mosuma dagg. benn laa mos a bëri man jéegi saako mag sànnaa ñi dama ko dóor tànk ñu ànd daanu man CNG mosuma dagg de te mosuma xëy ñu téye sama licence. Fils de Balla tamit mosuñu ko dagg mosuñoo téye licence. waaw kooku ñu dagg ko tas kooku bu nekkee ci géew bi di wër rek naan ay dagg. Hmm. kooku mënul dara day wax ni rek mais mënul lu bari de. ah zongale forum la de macha allah def na ko ay mbëri mbër daan ngay zongale ko attan ngay zongale man attanu ma may zongale de. attanu la yow ngi taxaw Lutte TV maa ngi koy seetlu ñu posé moom nekk cent trente kilos ma nekk cent vingt kilos mu kontaan. Mhm. ma ko bu ñu génnoon soixante kilos yëpp gerees la ci moom. Hmm. waaw. mais kon mbëri nañ dem liggéey te bàyyi affaire yi ñuy naan yi. non fii sa fii xale la de est-ce day naan dara. àndul dara de. laa kii li ma lay wax nii dafa sumeeku ma sumeeku ma xool ko ma xool ma. waaw boobu bi ngeen simee ko yéen ñaar noo gisee tiitoon nga xam naa bi nga gisee état bi wala da ko gis num la def. damaa mos a xam ne loolu du sax bëttu ma de. Ah. ma xam gis yaram bi dagg. ay rew laa gis gisuma sidit ay rew laa gis non man damay wax dëgg man du ma mbër yi nga xam ne dañuy wax lii lu dëgg wala nangam même su ma bëroon ak moom ba pare. daan hmm. ko te fekkuma ci mu doole bi ma naa man amul doole man dafa mbëri nga xam ne dañuy daan ba naa ko doole su ma ko fekkal moom ma bëreeg moom daan ko mu am doole man dafa am doole loolu dama wax dëgg man hmm, boo ko hmm. fekkoon mais noo ko gisee am na doole non am na doole non jàppante gu ma ma yaram rek di doole yaram bi nga gis ah. doy la daal doy la yaram boobu sar bi suuflee damay bañ laa ma bari loo bu mu tëdd ci digg sat ñu koy diri Fils de nee na dina la woo ci xeex mais doo ko wuyu ci xeex. est-ce que bu la neenam neenam ma. Fils Gora Sock xalaatul ma taxaw ma moom arbitre ne mu dagg jénge jàkkaaroo moom. billaahi la ko su xeexee man wari. Hmm. Fils su ma xeexloo ma wari nañ jël sama reliquat jox ko dama ne la waxal ak ñeme bokkul maa ko ñeme daa ko xeex maa ko daa xeex sa kaw. mais ñeme na la trop nag parce damay dégg boo nekkoon Gora a ngi fii sax. day sawar ñëw foofu pour daje ak yow. waaw ah, ñëwee xam nga ñëwee moo ko waral. Hmm. ñëwee mooy comme rek dafa wut dafa dafa du jël ci combat ba di wut wàllu te man comme dafa jël sama bopp te la 14 août su ma sama ngem ba dong dugg ci xam ne ma ko jël sama. moo tax nga ni day wut wàllu lu def lu wut wàllu. non boo ko déggee muy wax ci la ci laa xale dafa tooñ façon mbër bu nekk ci ci làmb ji tooñ façon amateur bu nekk te la 14 août maa koy réglé. yow mi waaw. la ko ma ñëwee ba xool cawtir bi waa parcelle ak waa Cambérène Tocci ak mboor mboor yëpp ah, dina xam ne maa ngi bokkul di woo fépp góor soog nekk di mboor mboor di lim 42 yëpp hmm. lew na Parba Daaru Mesere Njarno tay mboor Cëri Cepp Njéen Daaru Fall dëkku sëñ Cheikh Fall mboor bi këti guy reen dëkkee mënu ma ko lim toore bee sama dëkku papa ay hmm. maa woot sama combat di a ne maa ngi sant nag maa sant Diéli. Hmm. ñi may jàppale ñëpp. ci combat bi. combat bi am nga ci jàppale. Ah, man sans sans combat sans ma bëri am na ñu may jàppale. Hmm. ku mel ne maam père bak doomam Mansour loxo mosu jóg ci man. Hmm. Abdou Ndiaye sama asoli laay ñoom Seexu naa Jaw maître Dior Diagne Youssou Ndoye Dodo Soutien Papino Assane Bamba Dieng maa ngi koy sant bu baax sant Momo Mbaye nag teg nuyoo ci Momo Mbaye di sant Amadou Ba ak Seydou Barakane. Hmm. di sant Go Faye xam nga di sant nag képp ku dëkk Cambérène di sant nag maire li koy sant du damaa jàppale woon dara. Hmm. gox bi ma dëkk dama fa dëkk vingt deux ans. sa hmm. at day taa ndox. kër yoo am na kër yoo xam sax danañ am ñu demoon bay jaay seen kër ay sept millions ak six bi ñëwee yàggul motu trois mois mu defar canal boo xam ndox mi leen géej léegi fenn taawatul. ak cant la ci ay dëkkandoo dama ci kontaan hmm. si yàlla hmm. am naa ci mbégte hmm. ji nag li may wax ne moom nga dugal ma ko ndax dama ci am contentement du lu ma defal mais lu mu defal jeunesse su Cambérène la gox ma dëkk la war ma mbég maa ngi bu baax maire bi waaw waaw ma lay jaajafal bu baax ndax xam naa ne jël góor a Sock jafewul dafa jafe xaw ma combat bi moo toll foofu wala a Sock moo bañ a def ay sorti wala da ngay bañ saa yoo waxee Fils de Balla génn def sorti sa kaw non du loolu jëli instant may bañ wax di erreur di bañ di tooñ hmm. ak julli laa bëgguma yéen àq yi hmm. te média ñaari ba ci hmm. ma neexee lu ma ko bëgg wax naa ko ma ko ko ci famille du ma ko ci waajur du ma ko ci mais ci maa moom suñu diggante dama koy wax man noonu laa mel ma am respect tax Fils de Balla jàpp ni da ko ragal ah. kon ragaloo ko <laughs> man uy ma man amul ku ma ragal ci àdduna damaa def lu ne dem fu ni ànd ak ku nekk moo tax. mais moom dañ koy buñ ko dékkee micro rek mu waat ni Gora Sock ñemewu ma. loolu rek lay wax. laa wax ni man góor. ñemewu la katosu boo réparté bañ bëre par xam ne hmm. bu lay seetaan mu ngi lay seetaan jàkkaarloo yow boo ko doon ñaan ci combat bi lan nga koy ñaan nan ngeen bëgg a bëree yéen ñaan parce que amateurs yi bëgg nañ nag vraiment combat. espoir bu neex a neex a neex a. xam nga ñaan day fekk yow mënoo dara wala am looy lijjanti. waaw ñaanu ko dara nu ko neex na na ko taxaw ba même bu wutee bu ko neex na daw dama koy dàq ñàpp ko man. maa wax nii la man ñaanuma de ñaan mooy ko xam dara da la ëpp doole wala da dàq bëre gën ñor ci bëre wala daa gën a xam fu ñu bëree poulet Balla Gaye dëgg ngay waxal maa ko gën a xam fu ñu bëree ko xam fu bëre toll bu bëre fu ci bëre maa gën a xam la fa war a am kon yaa gën a technique dama ko dégg sañu man dama koy song dama koy wax ci interview bi laa koy waxee. Hmm. Fils de Balla dama lay song dama lay daan. nee na ci tànk bi nga jëm. waaw dama koy song léegi. foo koy ci tànk yi nga jëm tànk laay ah, góor a déet waay. non nekkul ma sax ay dama léegi dama koy song sànni ko fële. xam nga mbëri seen bopp dañoo yàqu dañuy yaakaar mbër moom benn kee rek dama la leen lay ko dama koy song ji. kon doo xeex ak moom. kon kuy ñëw ci amateur yaakaar xeex doo xeex ak moom. non man moom xeex mënu ñàkk sama digg. ñaata minute la combat bi di am. combat bi moom 40 secondes gën a bëri bu dawul mu mun ko romb wala wala une gën a bëri. doo ko may dara. non ban may. may ko may di nga ko may 5 minutes wala 10. du ma ko may dara incha allah rabi la 14. Gora Sock maa lay jaajëfal bu baax kontaan naa bu baax ci sa disponibilité. merci beaucoup Diéli. Hmm. jërëjëf. jërëjëf mbokk a Gora Sock lañ dalaloon di waxtaan ak moo xam naa ne dinañ. dem ci kër maa ngi nuyu sama tante nag. awa yaay awa yaay a yaay. <laughs> jërëjëf Gora